asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfe sëriñ tubaa jaraw laka maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb tey ji nag ñu war a présenter nga xamante ni bokk na ci li fi nit ñi gën a bëgg bëri na lool ay doomu aadama yu jóge fu ne pour di ko traité si fii muy problème mu rab muy problème mu faru rab rab ak jinneek seytaane am nañu lu koy faj mu tegu ci diine muy alquran karim ay ñaan yi ñu leen di may ñi xamante ni rab daf leen di yàqal lu bare bare yàq seen wërsëg yàq seen liggéey yàq seen i sëy yàq seen i yaram kon li nga xamante ni mooy traitement bi faj rab nag am na lu ñu takk am na lu ñu sangoo am na lu ñu diwoo am na lu ñuy naan maanaam traitement bu complet la comme ni ma ko waxee dafa yaatu te dafa bare ñu muy sonal ku nekk ak ni mu lay dalee kon am nañu ay pexe yi nga xamante ni mën nañ la seetal xoolal sa yaram yëpp ak sarax yeeg ñaan yeeg yëpp ñu defal la ko incha allahu rabbi kon nag képp ku soxla plus d'information contacter ñu ci numéro bii di 77 169 45 45 bu dee Dakar Guédiawaye arrêt Doubalès Kër Serigne Lamine Bara